célèbre bi jëm ci lijjanti xëyum ndaw ñi démb Ousmane Sonko moom tim def ab déclaration te déclaration boobu nga xam ne Ousmane Sonko def na ko bëri na loo xam ne man na ko yàq tey ji ci ndaje Macky Sall bi journal bi nee na du ñu wax guléet ndax discours à la nation bu ko Macky Sall waree def sax Ousmane Sonko daf koy jiitu sa discours ba lu ci mel ni fête fin d'année loolee tamit Ousmane Sonko gis nañ ne dafay ay discours maanaam xew-xew bu am bu am solo bu nekk rek bu ñu jàpp ne Macky Sall war na sa wax danañu dégg Ousmane Sonko wax sa ba si juróom-ñetti fan ci weeru mars yéene kaay gi ne Sonko njiitul Pastef ma ngi koy bàyyil Macky Sall ci lu jëm ci wàllum communication maanaam marquage à la culotte noonu la Ousmane Sonko doxalee ak Macky Sall te nag lii nga xam ne mooy conseil présidentiel bi Macky Sall def tey ci mën nañoo wax ne Ousmane Sonko xajamal na discours Macky Sall bi te dara xewagu la waaye nag li nga xam ne moo am ba de Sall jamono ji bëri na ay ndaw yoo xam ne mënatuñoo déglu Macky Sall te nag Ousmane Sonko ko yi nga xam ne moom la leen Ousmane Sonko na ci dossier xam ne moo dox digganteem ak ji dal na lool ñu daal di koy àtte te am na lenn loo xam ne du ko nangu tey du ko nangu lëkk maanaam ñu bàyyi ba élection ñëw ñu koy jaabantaloo loolee munu koo nangoo te nag élection présidentielle 2024 nee na nag ba buftu bi wala amul kenn ku dul yàlla sunu borom ko say mën a tere bokk yéen a kaay gi di Les Échos Ousmane Sonko démb yàkk na musiba ak mbelengaan Idrissa Seck nee na Idrissa Seck a perdu a di ñi pes ko ci maanaam ci réew mi njiitu réew mi di président Macky Sall génne na lu toll ci soixante milliards ci campagne agricole deux mille vingt et un jàpp deux mille a kaay yi nga xam ne ñoo bokk APR ñoom dañu doon amal assemblée générale ci siège su APR waaye nag mbir ma fa mu daal mooy saagante ay ndax ki nga xam ne mooy Seydou Nourou Kane ak nag Amath Sane Camara ay saagante ndey la fa nekk woon ku dagg ba sonn jox sa moromu dagg yéen a kaay gi nee mbir ma kenn mujj ta a mbir mi dem na instruction juge huitième cabinet lañ ko dénk yéen a gi nee na mbir moomee ñaari chinois la ak ñetti sénégalais journal bi nee na la ñu leen di toppee mooy trafic lu jëm ci wàllum faux médicament ak nag bëgg a lor nu doomu adama yéen a gi di Sud Quotidien nee na tey ji la conseil présidentiel bi nga xam ne njiitu réew mi di président Macky Sall dina ko ngir nag lijjanti jafe yi nga xam ne ndaw ñu am nañu ko ndaw ñi ci réew mi tey ji ñoo ngi déglu ma Sall yéen a kaay gi di Vox Populi nee na nag am na ndaw ñoo xam ne daal maanaam nopp bu bon bi la ñuy jox Macky Sall mu jaar ci nopp bi génn ci nopp ndax am na ay ndaw yoo xam ne 2012 ba léegi nee nañu Macky Sall teg na fi nag ay bànqaas waaye nag furaas dali xëdana ay nitam lay jël ci lu jëm ci wàllum politique daal leen fay teg am na ndaw ñoo xam ne amuñu benn yaakaar ci nag li nga xam ne mooy conseil présidentiel bi Macky Sall yi def tey ji yéen a kaay gii di réew mi quotidien xëy wax ci ñaar fukkeelu édition forum du premier emploi bi nga xam ne waa MEDES ñoo koy amal niki démb la ba la ñuy sàkko ci réew mi ñu daal di koy boole def ko benn te loole dina am njariñ dina mën a lijjanti jafe-jafe yi nga xam ne ndaw ñu ñoo ngi koy dundoo démb nag maanaam ay junni junni ci ay ndaw ñoo wutali fi nga xam ne mooy nga Fahd Palace ca forum ba ngir nag sàkku seen xëy mu njëkk moom président Mbagnick Diop nee na forum bi maanaam gratuit la amul lenn loo xam ne nit dina ko ci fay ndax nag àdduna nit dafay am njariñ moom président Mbagnick Diop nee na nag maanaam xolam dafay jeex lool bu gisee ay ndaw yoo xam ne am nañu diplôme ba pare musuñoo nekk ci kanamu koo xam ne ab recruteur la wax na tamit jafe yi nga xam ne ndaw ñu ñoo ngi koy am lu jëm jëm ci wàllum financement yi xëy na samp ab laaj moom njiitul MEDES nee na kan moo daje ndaw bu ñu financé loolee ab laaj la kan moo daje ak ndaw boo xam ne maanaam moom la ñu financé moom na en tout cas daal mën naa am waaye moom musu koo gis Birahim am na loo xam ne maanaam moom la ñu sàkku te ne mooy Pape mu daal di fësal liste xam ne ñooy bénéficiaires yi maanaam ñi nga xam ne DER financé na leen loole nag waaw Forum Civil la ñoom Birahim Seck liste bi la ñuy sàkku ndax ñoom dañoo njort na mbir ma daal ay léexóor ak njaaxuma daan na say am li am ci journal bii di laas ak Vox Populi mooy police am nañu patron bu bees Seydou Bokar Yàgg la ñu fal ni ki démb ca conseil des ministres ba journal bii di Stades xëy dañu xibaar naan ñu Edouard Mendy soo moytuwulee mën naa jël ballon d'or africain su dee li nga xam ne mooy Ligue des champions yéene kaay gi ne na la ñu gi di Stades nee na Coupe CAF Jaraaf dem na quart de finale yéene kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa Khalifa Diam nga xam ne mooy manager Gris Bordeaux daan nay tontu nag xam ne mooy